awuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw ba ñu sante yàlla julli si yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñoo ngi naan jërëjëfati cheikhul xadim suñu yaakaar tey ak ëllëg di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te ba naal yu mu naal si yoonu maamam ji sama borom kàttanal ko mu eggali ko di ñaanal bu baax a baax sëñ ab sëñ Amdi Moustapha xalifa général des Baye Fall di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér du ñu avancé te du ñu ñaanal aussi suñu sang bu baax bi nga xamante ne moo ñu jiite si liggéey bi muy ñëw euh, sëñ Abdou Aziz moom sëñ Xaadim Awa Ba di ko ñaanal yàlla bay ko fi bu baax a baax mu yàgg ñoo jiite waaw comme ni ñu ko xamee tey ñu ngi waat fii seet si waat waa Daayira Jawartulaa fii si 15 rue de 15 rue Ferdinand de Lesseps fii si Grigny ñuy amal seen 12e édition cant comme ni ñu ko xamee ñoo ngi nii tey euh, fas yéene leen dégtal lépp li nga xamante ne programme bi noonu lay tëddee defal leen aussi tuuru commission yi xanaa damay bàyyi rek euh, sama jëwriñ sëñ Moussa mu daal di leen nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay waaw comme ni ko soxna Aïcha waxee ñu ngi nii tey ànd ak yéen fii ci Grigny ci cantu Jawartulaa yemoo fukk ak ñaareeli édition bi waaw comme ni ngeen ko xamee rek daara ji daa baaxoo at bu jot mu di amale ay cant waaw di cant di di sant sëriñ bi ni ko ngeen ko xamee nag cant gi moom dana ci tënk dana nekk ci lu toll ak ñeenti pàcc waaw tàmbalee ko ci jangu alxuraan waaye tamit jàngu njàngum xasaayit ci kuréel waaye tamit ci ci rajas noonu itam dana am conférence bu ñu fi amal yaatal waaye nag ku wax cant ku ne moom xam ne ne bernde mënu cee ñàkk loolee it dina am dina am ci bés bi kon xam naa xam na xam kon ñu jox kàddu gi sëñ Moustapha moom mu te it di leen fàttali ngeen abonné ci chaîne bii ngeen xam ne moom ngeen ñuy toppee mooy Diawartoulah TV nga xam ne moom moom mooy yaatal lépp loo xam ne ci wàllu diine la jëm rawatina ci yoonu Cheikhul Khadim bi di yoonu Murit fii ci Europe bi yëpp jërëjëf kon ñu jox ah, amis internautes de la TV alaikum à l'ensemble de la communauté musulmane de France du Sénégal et du monde entier. Tout d'abord, avant de commencer, nous tenons à adresser nos sincères salutations à notre guide spirituel, notre alif bien-aimé, Seigneur Muntaha Nous souhaitons qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde une très longue vie. Nous ajoutons aussi à ces salutations le Khalif général des Baïfals, Seigneur Amdi Mustafa Fall. Qu'Allah lui accorde également une, vie pérenne. Nous ne pouvons finir sans également saluer notre guide à nous, le responsable moral, le fondateur du Daïra à Paris, Seigneur Abdou Aziz Mbake Hadim Awaba. Nous souhaitons également que le tout miséricordieux lui accorde une vie pérenne afin qu'il puisse continuer à nous guider et à nous assister vers les sentiers de son grand-père, Hadim Rasoul, notre bien-aimé. C'est pour rendre grâce à ce bien-aimé, ce vaillant serviteur du prophète, euh, Cheikh Ahmadou Bamba Hadim Hadim Rasoul, que nous sommes présents ici aujourd'hui, ce samedi 13 mai 2023, au 15 rue Ferdinand de Lesseps, pour lui rendre grâce et rendre grâce à Allah Tout-Puissant. Ainsi, euh, aujourd'hui, nous allons rendre grâce à notre Seigneur à travers la lecture du Saint-Coran, à travers la déclamation des panégyriques du Cher tout au long de cette journée. Nous allons également vous montrer comment les commissions du Dara la Privé se sont préparées à cet événement, comment euh, l'organisation va se passer, quel est leur programme. Donc restez connectés, chers, chers, euh, restez connectés, chers amis internautes de Diortola TV. Et nous vous donnons rendez-vous. À tout de suite. asalaamaaleykum chers internet euh, Diawartoulah TV ñoo ngi nuyu ñëpp di ñuy jullit di ñëpp yi nga xam ne ñoo nekk ci Île de France di si taftale mbokki taalibe yi waaye balaa ñuy tàmbali ci lépp rek dañuy nuyu suñu xalifa général des Mourides Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké nga xamni mo fi nekkal serigne bi nekkal fi mouride yeb waye ñoo ngi toftal ci nuyoo bi Serigne Modou Menda Fall nga xamni moy khalifa général de Baye Fall kon niñ ko defé ñoo ngi ci 15 rue Ferdinand de Lesseps nekk fi dans le 91 si Île-de-France Euh, xanaa comme ni ñu koy defee saay su ne rek di dalal ñenn ci commission yi nga xam ni saay su ne Jawartulaa TV bu ñëwee ci événement yi dañuy profité waale rek comme ci Jawartulaa lañ nekk daara Jawartulaa dañuy profité waale rek dugg ci yenn commission yi nuyu mbokki taalibe yi laaj leen tamit seen impression ci liggéey bi ñoo ngi fiy dalal nag commission bi ñuy wax commission sécurité mën nañu wax ni su commission la si dans commission de d' organisation Euh, kon ñoo ngi ñoo ngi jox kàddu gi ci nekk sama càmmoñ sëñ fàll mu nuyoo dalal mbokki taalibe yi bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax ñun la ndongole sëñ Fallou ñu ngi leen di siyaar baax di siyaar ñëpp waaw xam naa nag euh, li ñu jiital ci ci ci ci wax ja rek mooy li sama sama jëwriñ wax sëñ Mara muy euh, wàllum sécurité bi moom la ñu dénkoon muy ñu féetee fa. loolu nag daanaka mooy commission organisation rek comme sous commission en fait donc euh, ñu ci di di di di di di di di ci nekk ba bis bi jeex daal ci kàttanu yàlla incha allah. alhamdulilah sëñ ñoo ko déggandoo kon ñu dalalaat suñu jëwriñ rek euh, ñu jox ko واعطني حسنة في دنيا وفي حد ويسرا لي سخيا جري جف برام توبا جري جف سرين توبا جري جف شيخ مود بامبا خادم رسول دا نعم، عدد انفاس المخلوقات ني شار مبوك طالب ييب آه، مان ني گن ما خام تي عبد العزيز نيا نعم. تي كوميسيون سيكوريتي ني جوخ ني تي تي كوميسيون بي ني جير اكستيريور بي دي فلويديفيه في دي دلال غاني آه، واو دي فخي نو غاني بو نيوي رك مونا تي بير دال بي باني بري في لول loolu mooy suñu suñu mission fii nii jërëjëf. ah jërëjëf suñu Abdou Aziz kon ñoo ko dékkandoo moom daanaka tàmbali na question yi nga xam ne wóoroon nañ ko bëgg laaj rek xanaa dañuy jox sëñ Fallou rek mu xuusaat tuuti ci lépp lan moo waral seen seen seen taxawaay fii ak yéen ban rôle la ñu am daanaka ci liggéey bi xanaa kay dañ koy joxaat dañuy joxaat sëñ Fallou kàddu gi rek mu leeralaatal un peu li nga xam ni sëñ Abdou Aziz jot na ko léegi. waaw daanaka moom nag sëñ Abdou Aziz wax na lépp ñun looloo ñu fi bàyyi mooy. Euh, di di di xool nu mu gën a taaroo rek du ma ne nu mu gën a taaroo mooy ñi nga xam ne dinañ jug bi ñu wootee ñoo wuy suñ ñu ànduñu ñun ñëpp sant sëñ Tuubaa bu ñëwee dinañ leen dalal incha allah daal di daal di fexe ba maam yoon wi yoon wi yaatu ba ku ñëw rek mën a jàll ci ci ci ci ci ci ci tawféex ba yegg ci biir daal di toog dund dund bis bi ci biir nga xam ne doo am benn blocage ci biti incha allah waaw oto yi itam buñ accès ñu mën leen a wutal place ci parking bi. ñu ñu mën a gaare gaare boo xam ne duñ am benn benn benn benn jafe-jafe daal waaw daanaka kon loolu mooy suñu taxawaay ci biti daal waaw ak sa ah alhamdulilah sëñ Fallou wax ji leer na naññ naññ sax waaw sëñ Abdou Aziz la ñuy tàllalaat micro bi rek bu ko defee mu gën ñu leeralaat parce que bu ñu waxee commission sécurité daanaka day laal un peu si organisation ma parce que ba ma ñëwee ci daara ji laajte naa ñu ne am na commission organisation am commission sécurité léegi damay laaj ndax am sous section la wala dafa nekk commission bi nga xam ni c'est indépendante de commission organisation si la waaw sécurité moom du du loo xamante ne dafa dafa dafa indépendant maanaam sous sous section la rek ci biir organisation la bokk na organisation daal moo ko ëmb mm-hmm. doon boo xamante ne nag daa xaw lool daa am noo xamante ne nan nga war a accueillir gan yi mm-hmm. am noo leen noo leen dalalee bu ñu taxee fi di saafante murit yi rek ak seeni bu ñu gëjee gisante ak yooyu noonu dañuy jéem xam nga day xaw a xorom daal taxawaay bi fi ak yooyu noonu moo tax daal kéemaan la foo nga am daal noo xamante ne nan ngay waxee gan yi mm-hmm. dalal leen te ba kenn du mer mm-hmm. am doo vexé kenn doo kenn loo xamante ne maanaam day danga koy xorom daal mu doon lu lu yéeme daal émission bu bu sensible la mais ñu ngi ñaan daal Serigne Touba defal ñu ci tawféex ba ba ñu defee ko ni ko ni ko murit yi bëggee incha allah. ak saa suñu Abdou Aziz daanaka leer na dañuy tourné waat rek demaat ci jëwriñ suñu fàllu mu gën ñu leeralaat rek ñaareelu question bi nga xam ne moom lañ koy laaj. di ko laaj rek daanaka ba amu leen yenn yenn yenn problème rek ci boo leen di eh, seen organisation ni ngeen koy defee nii daanaka gis nañu mbooloo mi bare na oto yu bare na nit ñi mi ngi am aller retour yeeg bare na est-ce que am am ngeen ci problème daal wala eh, waaw question boobu lañ lay njëkk laaj sax balaa ñuy demaat rebondiraat ci yeneen question yi daal est-ce que da ngeen ci am problème jafe am ngeen ci jafe-jafe bi nga xam ni eh, mën mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko wax daal waaw fi mu ne nii de daanaka bi bis bi commencé ak léegi moom daanaka ci suba gi lañ tollagum la ba ci gi daal waaye boobaak léegi moom mel na ni murid yi ñu koy ñu koy yombalal waaye nag euh, waaj nañ waajaay waajtaay woo xam ne xañ na sóoraale nañ yu mel noonu ndax doomi aadama dañoo bari te bokkuñu am na ñoo xam ne xañ na dinañ dina yomb lool pour nga nga nga nga wax ak ñoom saafonte ak ñoom ak na ñoo xam ne neneen la ñu mel waajal nañ loolu lépp te loolu bu ma juumul sëñ Abdou Aziz sama sama sama jëwrin wax na ko léegi junj na ko maanaam am na noo xam ne noonu ngay mel pour mën a accueillir murid yi pour mën ñu mën a dugg ci jàmm mm. moo tax daanaka doon lu jafe ci ñun mm. waaw nu nu murid ñëwee rek incha allah dinañ fexe ba ba ba naxtaan ak ñoom. Mhm. ci ci ñi nga xam ne ci beneen anam lañ accès ci bërëb bi. Mhm. bu ko defee ñu mën a yegg ci biir. Mhm. loolu daal mooy sunu sunu objectif te te te te amaguñ ci jafe-jafe. waaw amaguñ ci jafe-jafe organiser nañ ko te te bàyyi nañ ci xel daal. bàyyi nañ ci xel ci fànn yëpp wax dëgg yàlla di ñaan sëriñ bi gën ñu koo yombalal te te te te tañ bokk lépp daal muy ay tawféex ba xasida yi jërëjëf suñ suñ suñ fàllu wax ji leer na daanaka dañuy gën a xuusaat ci ci ci ci débat bi rek gën a laaj yi en que sëñ Abdou Aziz la ñuy joxaat kàddu gi rek. waaw xanaa ñu rebondiraat rek ci si sëñ Abdou Aziz laaj ko ci wàllum liggéey bi xuusaat demaat ci ci ci programme bi rek euh, comme organi comme organisation la ñuy wax su section bi nekk sécurité. Mm. est-ce que disposition yi ngeen teg est-ce que jàpp ngeen ni mat na sëkk sëkk sëkk sëkk ba war a doxal bis bi comme ni mu war a doxee. waaw alhamdulilah alhamdulilah jàpp naa ne jàpp naa ne mat na ndax boo xoolee taxu koo taxu koo metti trop trop trop xaw naa sensible mais taxu koo métti trop trop trop effectif bi mat na bokk taal bi ku ci nekk teg nañ la fi ñu la war a teg li ci des mooy jéem a jéem a naxanteeg murit yi communication la la la laaj wax ak murit yi ba doo doo doo kenn doo doo wax kenn lu loo xamante ne maanaam day day day nuru lu xaw a xorom ba tax muy muy muy yàq màggalam wala cantam waaw defe naa ne loolu daal ñu ngi ciy ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax mm. comme li ci ëpp daal boo xoolee sécurité la waaye communication la. macha allah sëñ Abdou Aziz am na solo lool lool ci leeral bi daanaka ñun sunu sunu kàllaama bu ñu déggee sécurité rek dañuy jàpp nii dafa am benn force contraignante bu ci am daanaka dañuy forcer nit ñi wala waaye li ñu ko waxee rek nee nga accueil dafa am sensibilisation bi tamit da ci am waaye tamit taw féexal nit ñi nga xam ni ñoo xamul liggéey bi ñu gën leen fluidifier euh, tra yoon yeeg yooyu noonu xeet googu daanaka sécurité bi foofu lañ ko gën a jëlee xanaa dañuy dikkaat rek ci sëñ Fallou laaj ka expérience bi mu jot am ci liggéey bi daanaka ñun Jawartulaa comme comme laa nga xam ni ñëpp xamee nañ leen ci organisation xamee nañ leen tamit ci ci ci ci maañ seen seen xel màcc na ci ci wàllum xeet gu ne ci organisation cant gu ne expérience bi ñu ci am moom est-ce que euh, daara ji si boppam daanaka euh, est-ce que daara ji si boppam. lu si ëpp da ngeen koy def événement ba événement ngeen di def sécurité wàllum sécurité ak yooyu noonu wala bis daara ji bu amee chaque samedi da ngeen koy def suñ fall waaw li jëm ci wàllu woowu itam daanaka ñun moom suñ commission fonctionnement bi tax ñuy dëgg-dëgg ñuy wax waxi fonctionnement mm-hmm. euh, ci cant gi ñuy sant Sëñ Tuubaa moom ci la ñuy gën a gën a gën a yëngu daal par rapport ak suñ commission ñun ndax buñ ne comité comité comité comité sécurité ren dañ ko fusionné ak euh, organisation. Mm-hmm. juste parce que dañoo gën a mën a am pour ñu gën a am force. Mm-hmm. gën a organisation bi gën a yomb. Mm-hmm. nga xam ne maanaam gis nañ avancement bu baax a baax a baax loolu nag maanaam euh, gis nañ ci gis nañ ci gis nañ ci tawféex wax dëgg yàlla bi ñu ko defee ndax yombalal nañ ko. yomb na ci ñoom yomb na ci ñoom comme ni ko jëwriñ waxee léegi sëñ Abdou Aziz dafa nekk loo xam ne nii commission la boo xam ne du du du fi ñu koy fi ñu koy xalaatee ci benn côté quoi muy sécurité ñun liñ gën a soxla mooy communication ak akay ak ak ak ak ak ak ak yu ni mel daal daanaka ñun loolu lañ gën a gën a gën a gën a gën a def mooy suñu liggéey donc euh, expérience bu aussi comme niñ koy wa comme niñ koy jëwriñ waxee ci samedi yi mm. daanaka nekk nañ ci benn saal boo xam ne ñun rek a fa ne mhm. ñun daal bu ma nee ñun neen mooy membre jawartu laa ak xam ne xañ na ay gan lañ fay nekk nekk benn benn ñooñu bu ñu ñëwee dinañ neex a parce que dañuy ñëw fekk ñu fekk ñu ak niñ mel mhm. bu ko defee ñoomee ñu mel noonu kon mhm. loolu du jar du jar du jar sécuriser en fait du jar accueil du jar du jar ñoom bu ñu ñëwee bu ñu xoolee rek waaw fexe ba bu boo boo comme ni ko ni koy waxee fexe ba mel noo xam ne bu ñu maam ku la gis defaru loolu moom buñ ko buñ foo fexee ba ba ba sëriñ bi taw feexal ñu ko mm. wax dëgg yàlla kon du jarati je pense que yu mel noonu mm. mais nag comme day am wuute ak tey nga xam ne tey du ñun kase mm. ñun dañoo woo France gépp woo Europe gépp woo àdduna bi yëpp kon tey dañuy xaar ku ne comme ñi ngi xaar ku ne nag woon Sëñ Tuubaa dañoo dañoo dañoo jug ñun ñëpp ngir teertu leen te xam ne ñoom ñooy ñooy ñëw ñoo leen di dalal jox leen ñu ay bernde ñoo leen di dalal ñoo leen di waxtaanal ñoo leen di ñoo ñooy def ak ñoom lépp tey ba bis bi jeex kon loolu day day day jar ñun ñu nga xam ne ñoo doon toog ñëpp ci daara ji dañuy jóg mobiliser wu daal di daal di daal di fexe ba lépp jaar yoon ñu cant seen Tuubaa ñun ñëpp sëñ Tuubaa nangul ñu ko ñun ñëpp tawféex ak saa daanaka loolu wax na ko cant moom bu ñu ko waxee rek daanaka dañuy dañuy yemale foofu kàddu yi di wax ñi dalal mbokki taalibe yi nga xam ne ñëw nañ ci ci bis bi yëpp mooy euh, appel bi nga xam ne la def di sant ñaari jëwriñ yi nga xam ne ñoom la ñu dalaloon ci ci ci ci interview bi ñi kàddu yi rafet na liggéey bi rafet na waaye tamit waxtaan bi amoon na solo loolu daanaka xam nañu lan mooy commission sécurité ba nga xam ni bokk na ci organisation waaye sous section la comme nu ma ko waxee woon léegi kon jërëjëf jëwriñ yi sëñ Fallou ñoo ngi lay jaajëfal bu baax di di sant bu baax ci euh, temps bi ñu may pour ñu mën a waxtaan ak yow ci bis bi di santaale sëñ Abdou Aziz tamit amoon na solo lool jërëjëf kon mbokk internautes yi ñoo ngi leen koy wax rek daanaka mën ngeen abonné ci Diawartoulah TV mën ngeen abonné chaîne bi nga xam ni daanaka moo nekk ci diaspora bi comme ni ñu koy faral di defee nga xam ni nekkal nekk yéen lañ fi nekkal mbokk jullit di lañ fi nekkal waaye tamit mbokk taalibe lañ leen fàkk fàtte mukk di abone ci chaîne bi nga xam ni dina dina dina mën a jàppandi bu baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf wasalaam inni laqillu liman mahma amudda yadi